ak euh, kon ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Jax Production euh, moom moo ngi organiser euh, làmb mbapat bu mag fi nga xamante ni moom moo di fële ci senegal Ndakaaru ci arène national teg ca dix millions ban gis-gis nga ci am ci ci ci ci ci mbapat boobu noonu làmb jooj waaw Jax boobu nga gis noonu mosuñu gisante en personne xaw ma ko mais nit ku ma naw la parce que dafa am fu mu jëlee làmb simple am fu mu ko yóbbu ku ne xam ne làmb simple man bëri naa ko. dem naa Denis Senghor daanaa dem gaal gi daaw ma génn ci àll bi nag mais ay 500000 ay 1 million lañ fa daan teg ñuy reyante tey bu demee bay mise ay 10 millions man li ma ci métti sax mooy tey jii champion yu mel ni ay rëg-rëg gisatoo leen ci làmb ji yu mel ni ay yom franc mais tey jii xam nga xëy na ñu ngi ci yeneen business maa ngi dégg mais tey jax journée yooyu tey jii boo fa demee après yow sax da ngay bëgg làmb tey jii du ma la fenn am ñu bëri bëri leen làmb dóor ndax lamb simple yooyu parce que journée yooyu da ngay gis lamb gis culture gis tous les composants de la lutte maanaam lépp loo xam ne moo yor charme lamb rek da koy gis foofu da ngay gis bon dévouement gis engagement gis culture ba pare gis bëre pur et dur moo tax vraiment promoteurs yu mel ni Jax tamit nañ leen jàppale de côté xam nga di leen dimbale xam nga di leen sponsorisé ndax parce que vraiment am na fu ñu bëri simple boo xoolee bëri simple am na bëri simple yoo xam ne tey jii ñu ngi gis seen bopp parce que tamit bëre tamit du dóor rek. defe naa ni c'est la première fois ñu gis euh, euh, promoteur bu mel noonu daal di fi organiser lu mel noonu teg ci dix millions euh, ci ci ci ci làmb loolu tamit yombul. Luc Nicolaï ko doon def. mais boo doon na def di teg dix millions. waaw Luc day teg teg ci Mbapat teg na dix millions teg na cinq millions à Mbour teg na dix millions Dakar man fekkee naa ko yaa ngi dégg. bon tey mais Jax boo xoolee tey jii tey ci promoteur promoteur simple yi. moo moom moom moo ci promoteur bi gën a mag moom sax boo xoolee bi léegi ci côté boobu la gën a focalisé wu mais bëgg naa daal ñu koy jàppale parce que tamit bëri bëri simple tamit dafa am ay champion yoo xam ne foofu lañ nekk seen carrière fa la ko yàlla tudd ñu nekk ñoo xam ne nii seen làmb fa lañ ko fas yéene def kon ñooñu tamit war nañ leen dooleel ñu gis seen bopp ci làmb parce que boo bëri simple moo gën a métti sa bëri dóor parce que tey boo xoolee tey bon mise bi tey finaliste bi kii jël final bi lu mu bëri bëri bëri bëri lu mu bon bon dina daan cinq personnes daan cinq personnes nag cinq góor yoo xam ne nii ñu fi ñu jóge ci benn ngoon ku ne xam ne ne bon bon c'est pas une chose facile yombul. amaan na leneen di ca ruusee sa lamb jooja euh, nee nee nañu si euh, wàllum site internet yi benn site internet rek la ñu may mu dugg ci lamb ji muy sunu lamb yeneen yi si des yëpp ku ci ñëw da ngay fay cinquante mille francs bon bokk d'accord parce que tamit boo xool tamit affaire bi tamit ay téeméer ay États-Unis adduna bi lépp waru nekk free xam nga yow tamit yor sa site internet yor sa caméra yaa ngi dégg yow xoolal te jii bu fi nga njëkkee ak la fi nekk yaa ngi ak sa caméraman yaa ngi dégg nga déplacé wu xoolal bi nga ñëwee fii Bronx avant nga am foo gaare rek sonn nga te am na am na foo xam boo fa gaaroon te dina la bindal ticket mhm. bu la bindal boo xam ne nii mën a egg ay cent dollars mhm. kon affaire yi warul nekk free bu nekkee free rek après du dem yaa ngi dégg parce que yow promoteur bi dafa fay stade bi dafa dagg licence fay policiers yi fay frais d'organisation après yow nga jóge fee ak sa caméra ak sa micro yor sa site xam nga ñëw def sa xam nga filmer sa affaire dem xam nga am say vue YouTube fay la xaw ma noo koy business bi yen a xam nga lekk sa xaalis après yow promoteur bi jox ko ci dara tamit loolu tamit promoteur yi xam nañ xam nañ affaire bi tamit xam nga lan la euh, question d'organisation la rek bon d'accord cinquante mille xaw ma bari na wala bariwul parce que waa ji est-ce que dina ko ci am wala lim ci am dina bari mais au moins sax ñu xool nuñ ko war a mën a oyofalee ba yow promoteur bi du gaañu. borom site bi du gaañu. kenn du gaañ kenn. kenn ku ci nekk am ci dara ku ne bu sa kër. man daal moom mooy. loolu sa xalaat ok.